xaqa taqwa wa raaqibuhu muraqabata man yaalamu annahu taala yasmacu wa yara wa alamu anna xayra alxadisi kitaabullah wa xayra alhuda huda muhammad wa charra alumuuri muxdasaatuha wa kulla bidcatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar qaala taala yaa ayuha alladina aamanuu ida nuudiya lilsalaati min yowmi aljumuati fascaw ila dikri llahi wa zaru lbayc dalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun fa ida qudiyat alsalaatu fantashiruu fi l ardi wabtaxuu min fadlillahi waskuru llaha kasiran laalakum tuflixuun axraja albuxaariyu fi saxiixi an abi hurayrata radiallahu taala anhu anna rasula allahi sala allahu alayhi wa sallama qaal man ixtasala yowma aljumuati gusla aljanabati summa raaxa ila almasjidi fa kaannama qaraba badana wa man raaxa fi saacati altaaniyati fa ka annama qaraba baqara wa man raaxa fi saacati alsaalisati fa ka annama qaraba kabshan aqran wa man raaxa fi saacati alraabiati fa ka annama qaraba dajaaja wa man raaxa fi saacati alxaamisati fa ka annama qaraba bayda fa ida xaraja alimaamu xadrat almalaaikati yastamicuuna alzikr wa ruwiya an rasulillahi sal allahu alayhi wa sallama qaal alsalawaatu alxams والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت كبائر وفي سنن ابن ناجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعة وليختمن الله على قلوبكم ثم ليكونن من الغافلين وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال man taraka aljumaata salaasa jumaain mutawaliyatin faqad nabaza alislaama waraa zahra wa an ibni abbasin radi allahu taala anhu anna rasula allahi sal allahu alayhi wa sallam qaal man taraka aljumaata salaasa juma salaasan kutiba inda allahi munaafiqan fi kitaabin laa yumxaa wala yubaddal wa aleykum bimtisaali almamuraat wa ijtinaabi almanhiyaat wala taxurannakum alxayaata addunya fa innaha mataaun qalilun amma qalilun yifna wal axiratu xayrun wa abqa qaala taala ida alsamaau infatarat wa ida alkawaakibu intasharat wa ida albixaaru fujjirat wa ida alqubuuru buxsirat alimat nafsun ma qaddamat wa axarat Eh, ñu ngi sant yàlla bu baax xutba gi ñu doon xutba léegi ñu tënk ko ci olof mooy dafay wane ngëneeli ajjuma ak itam fonk gi ñu ko war a fenk eh, li ci Cheikh Ibrahim ñas wax mooy dafa wane ne ñu ngi sant yàlla ne mi nga xam ne moo def ajjuma bu bokk ci eh, feet yu gën a mag ci lislaam lislaam dafa am ay feet yu bari feet tabaski am na mooy bu ajee ba pare yàlla may ñu feet korite gi moo paase bi ñu ooree topp ndigal yàlla ci lañu yàlla may feetu korite kon ajuma ji gannaaw buñ doxalee benn semaine ci suñu ite ci lañu yàlla may feeti ajuma pour ñu war koo feetu kon moo tax mu ne mu ngi sant yàlla mi nga xam ne dafa def ajuma mu bokk ci feet yu mag yi ci lislaam wane ne diggante ajuma ak ju ajuma dafay kaafara bàkkaar yi ci nekk yépp lu may buñ teetee nag bàkkaar yu mag yi kon nit ki war naa mën a góorlu ba nga xam ne diggante ajuma ba ajuma dootu fa dese bàkkaar bu jullee ajuma tey fexe góor góorlu ba teet bàkkaar yu mag yi ba nga xam ne ajjuma ji di ñëwee bu julliyaatee yàlla dana paas ay bakkaaram yépp ajjuma ngëneelam ci ñi nga xam ne yàlla mayu leen doole bañ mën a aji julli ajjuma mën na leen a may yoolu aj ñi nga xam ne am nañ ngànt wala am nañ do euh, ak faiblesse boo xam ne mënuñoo aji su fekkee ne julli nañ ajjuma góor góorlu ci teet bàkkaat yu mag yi diggante ajuma ak ajuma yàlla mën na fexe ñoom seen ajuma googu yàlla mën na leen cee may yoolu aj kon ngëneeli ajuma lu rëy la gannaaw ga mu sant yàlla indi benn xadis boo xam ne nag ñépp war nañ cee bàyyi xel mooy xadis bii wane ne képp koo xam ne ajuma jot na nga dem ci saasu njëkk sa yàlla dina la may yoolu ku ko ku jaamoo yàlla gëléem boo demee ci saasu su ñaareel yàlla dina la may yoolu ku yàlla yëkk boo demee ci saa su ñaareel si ñetteel bi dina la may yoolu ku jaamoo yàlla am xaaf nga dem ci saasu ñeenteel bi mu may la yoolu ku jaamoo yàlla ganaar boo sàgganee nag ba dem saa su mujj muy saa su juróomeel sa moom daf lay may yoolu ku jaamoo yàlla nen xoolal nag ndax nit mën naa sàggan ci diggante bu gàtt nga am ci yoolu gëléem dema dema dem ba yool boobu nekk nen loolu kenn ku nekk war na ko moytu te diggante saa saa su ñuy wax nii saa su gàtt la mooy diggante fi ñu noddee zawal ak ba imaam bi di ñëw rek moo tax mooy ne daf ne fa ida xarajal imaamu xadaratil malaikati yastamiuna zikr fi nekk nii jumaa ji ak li ko wër yëpp malaaka yaa ngi ko wër téye seeni karne diw ñëw na julli yi ci saasu nangam diw ñëw na julli si ci saasu nangam diw ñëw na am na yoolu nangam waxtu imaam génnee nag pour ñu julli si ilimaan malaaka yi dañuy tëj seen carnet yi ñëw toog di déglu xutbu ilimaan bi kon nit ku tardé ba bañ bañ commencé xutba am nga yoolu jumaa waaye dootoo am ci yool yooyu ñu doon wax dootuñ la bind ci karne boobu te itam dootoo am ci yoolu gëlëm nii yoolu nag walla yoolu xar wala ba ba ngay amee yoolu nen kon daal lépp luñ mën a nekk ci bu àjjuma jotee dañ ko war a fooglu te di ko waajal nga xam ne bu waxtu ba jotee rek ñu bàyyi lépp lu ñu doon def dem julli ci noonu la ko aaya ji waxee iza nudiya lis salaati min yawmil jumaati fasaw ila zikrillahi wa zarul bayaa waxtu wu ñu ootee jëm ci ajuma na ngeen dox jëm ci uy ji bi yàlla bi te ngeen bàyyi jënd ak njaay jënd njaay nag dafa yaatu jënd ak njaay du jënd ak njaay ci marché bi rek waaye lépp lu dul yàlla rek boo ko defee ci waxtu wii nii mooy ne yaa ngi ci jënd ak njaay yaa ngi ci fi àddina kon nañ góor góorlu ci loolu ajuma lépp lu mu la mën a fekk da ko war a bàyyi dem julli ndax yonent bi wax na ci benn xadis ne su ma sañoon damay nekk ñaari muhammad benn bi bu àjjuma jotee mu ñëw taxaw ci min bar bi di jiite nit ñi beneen bi di wër kër yi ak palaasu liggéeyukaay yi ku mu fekk sa kër wala sa palaasu liggéeyukaay yi te amoo ngànt pour julli ji ma lakk ko sa kaw xam nga yonent bi ni mu bëri yërmande bu fekkee ne moom mooy wax loolu kon aj eh, ajuma am na solo lool xadis yu mujj nag yi gën a raglu mooy man tarakal jumaata salaasa jumaain mutawaliyaatin faqad nabazal islaama waraa zahri képp koo xam ne danga bàyyi ajuma ñetti jumaa yu tegaloo te amoo ci benn ngànt kooku moom sànni na lislaam ci gannaawam maanaam dootu julli loolu la yonent bi wax xadis bi ibnu abbas moo ko solo te xadis bu wér la mu waxaat ci beneen xadis ne man taka man taraka jumaata salaasan kutiba inda allahi munafiqan fii kitaabin laa yu yumxaa wala yubaddal képp koo xam ne danga bàyyi aj ñetti ajuma yu tegaloo te amoo benn ngant bi koy bàyyi kooku yàlla danañ ko bind ci moom yàlla ne moom naafiq la te mbind moo xam ne duñ ko changé te duñ ko far yépp boo ko résumé di nga xam ne importance su ajuma mooy lan kon nañ leen ci góor góorlu nañu fexe ba jaamu yàlla ci ni mu ko bëggee waaye ñun bu ñu ko jàmm ci ni ñu ko bëggee ñun dig def nañ defal def nañu ay digal nañ topp ndigal yi bu la yàlla ne julli tisbaar ñeenti ràkka la nga dem julli juróomi ràkka julli woo tisbaar leneen rek nga julli bu ne la timis ñetti ràkka la nga julli ñaar julli woo timis kon yàlla danga koy jaamu ni mu bëggee moom waaye doo ko jaamu ni nga bëggee yow te bu ñu xoolee li ñu yàlla may yépp ak lim ñu laaj kon war nañu mën a delloo njukkal puisque bu la mayee 24 heures yoo xam ne yaa ngi nokki bu la xajoon benn nokki bu baax rek ci benn cinq minutes rek nga da ko yëg mu laaj la ci 24 heures yooyu yëpp diggante waajaayu julli ak julli ga yëpp juróomi julli la diggante bi yëpp matul waxtu julli gu nekk boo koy waaj ak ba nga koy jullee mënoo cee jël quinze minutes quinze minutes boo ko doon multiplier par 5. 45 minutes la loolu la la yàlla laaj nga jox ko ci bis bi semaine bi mu laaj la loo xam ne ba diggante waajaay bi ak ba nga koy paree yépp matut une heure de temps mooy àjjuma ji ñëpp bu ñuy liggéey ba une heure war nañoo mën a taxaw diggante une heure ba deux heures et demie war na nga mën a pare àjjuma diggante sa waajaay ak lépp kon ku la may semaine bi yépp nga nekk ci sa àddina nga nekk ci sa yëf mu may la ngay nokki mu may la nga wér may la lim la war a may yëpp laaj la lenn ci li ci li nga li nga ko war a defal nga koy sàgganee loolu képp ku koy def rek xamoo li ngay def kon nañ leen delluwaat ci yàlla li tey jii mboolem jafe-jafe yi nga xam ne moom lañu am dara waralu ko lu may su liñ def ñun yàlla wax na ci alxuraan ne zahara al fasaadu fil bari wal baxri bi ma kasabat aydiyi naas feeñ na ci suuf ak ci jaww ji ak ci géej gi yàqute yàqute goo xam ne nit ñi ñoo ko def def wax na ci alxuraan ne wala tufsidu fil ardi baada islaahiha bu leen yàq suuf gannaaw bu ko defaree ba pare xam nga tey lii di xew ci àddina si yépp aaya jooju mën na ko firi zahara al fasaadu fil barri wal baxri bi maa kasabat aydi naas nit ñi ñoo yàq suuf si tey ñu ngi organiser ay some sur le réchauffement climatique ñii ba nangu nañ ñii bañ nañ réew yi ñu ngi leen di wax ne diminuer leen seen émission de gaz à effet de ñi gën a am doole ci àddina si dañ koo bañ defuñ ca dara waaye tey gis nga bi corona bi ñëwee liñ doon njëkkalante lépp ñoom tey toog nañ liggéeyuñ économie yi daanu na lépp ngi rës te lépp ci seen loxo la jóge ndax soo yàqee suuf si yàq jaww ji dafay jële jóge ci ay feebar ki maladie dootoo ko mën a maîtriser kon ji njëkkalante bi ci développement yëpp yëpp yëpp yàlla moom moom àddina si moo koy moo koy réguler bu ko neexee ci benn seconde mu dérégle ko année 2020 fin 2019 ak anne mille 2020 ba tey ci mille 2021 yàlla war na mbooleem puissance yi dooleem ci corona bi kon loolu war naa tax ba ñëpp delluwaat ci yàlla xam ne yàlla rek moo mën a faj yàlla rek moo mën a téye àddina si yàlla rek moo ko mën a équilibré lim ñu def lim ñu sant nañ ko def te bàyyee ko moom lim mu lim ñu war a def yàlla nañu yàlla nangul yàlla nañu yàlla aar allahumma euh, farij an ummati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كفروا بآيات الله والله لا يهدي القوم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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar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 laysa lahum taamun illa min dariin la yusminu wala yugni min juu wujuhun yawma idin naaimatun lisaayaha raadiyatun fi jannatin aaliyatin la tasmau fiha laaqiya fiha aynun jaariya fiha sururun marfuatun wa akwaabun mawduatun wa namaariqu masfuufatun wa zaraabiyu mabsuusa afalaa yanzuruuna ila al-ibili kayfa xuliqat wa ila as-samaai kayfa rufiat wa ila al-jibaali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fa zakkir innama anta mudakkir lasta alayhim bi musaytirin illa man tawalla wa kafar fa yuadibuhu llahu adaba al akbar inna ilayna iyaabahum summa inna alayna xisaabahum allahu akbar sami allahu liman xamida allahu akbar allahu akbar allah asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah ñetti alam nashra jàng ñetti salaatul fatiha ñaan yàlla mu may ñu jàmm ñu xam ne jàmm ci quartier bi ak ci Dakar ak ci Sénégal ak ci Afrique yëpp di ñaanal imam bi nga xam ne moo doon jiite tey muy Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Ousmane ñes nga xam ne leeral na lu bëree bari ci ngëneel ajuma leeral na ci problème international bi nga xam ne moo dal adduna bi yëpp wane ne xëccoo adduna ak xëccoo maaman rek moo ñuy dugal ci ay problèmes yoo xam ne duñ ci mën a génn waaye ki mën dëgg-dëgg mooy yàlla ñu ngi wax ne dégg nañ jigéen yi yàlla nañu yàlla def ci ñi nga xam ne dañuy dégg topp ñaan yi tamit dégg nañ ko ñu ngi wax amin ci ñaan yi nga xam ne ñaan na ko di ñaan yàlla mu yàgg ñoo jiite di ñaan yàlla mu defal ko ndam yokk xam-xamam ci barke alquraan karim kon Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Ousmane Fati moo doon imam bi tey mu doon jiite ci kàddu yooyu nga xam ne moom ngeen déggoon ci xutba gi muy kàddu yoo xam ne kàddu yu jotal la sëriñ bi ñu lay ñaan nga ñaanal Sénégal ñaanal Afrique ñaanal adduna bi yëpp ndax li nga wax mooy ne solution bi yëpp mooy alquran solution bi yëpp mooy wane ne yàlla rek mooy ki nga xam ne innama amru ida rasha an yaqulu kun loo xam-xam yàlla moo la gën a xam ah looy programme programme yàlla moo la gën a xam programme fu mu jëm kon liñ déggee ci sa xutba mooy ne nañ delloo mbir yi ci yàlla ñi ngi ñaan yàlla yàlla may ñu tawfiq may ñu dégg-dégg bañ mën a delloo mbir yi ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu astain ihdina sirata almustaqima sirata alladina anamta alayhim gayri magdubi alayhim wala dalin amin ya rabbi bizati wa bisifati fakun lana fi sairi alhalati sabbit qulubana ala al imaani wal tahdina li amali al ihsaani unzur ilayna wansurna diina addi xuquqana wa addi dayna wa hab lana zuriyatan mubarakan takunu lillahi bila musharaka wajzi li kulli man ilayna ahsana wa jaazihi anna jazaa al ahsana bil mustafa shafi'i yawma al mahshari xayril wara man qad hubbi bil kawsari alayhi salla rabbuna wa sallama wa faada bil xayri lana wa ammama alayhi salla rabbuna wa sallama wa faada bil xayri lana wa ammama alayhi salla rabbuna wa sallama wa faada bil xayri lana wa ammama allahuma salli ala seydina muhammadin alfatix lima uliq walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaqi bilxaq walhaadii ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim salaatan taftaxu lana biha abwaaba rida wa taysir wa tuxliqu biha anna abwaaba alcharri walgalabati waltacsir wa takunu lana biha waliyan wa nasiran anta waliyuna ya rabbi wa mawlana fa nicma almawla wa nicma alnasir fa ni'mal mawla wa ni'man nasir fa ni'mal mawla wa ni'man nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun wa salaamun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bizzaati wa bisifaati fakun lana fi saa'iri alxaalaati sabbit qulubana ala alimaani waltahdina li amali alixsaani انظر إلينا وانصرنا الدين أد حقوقنا وأد دينا وهب لنا ذرية مباركا تكون لله بلا مشاركة